asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax si leen di am mbégte saa su ne vidéo di leen continuer di leen ñaax euh, pour maay club yi surtout sax am na fi euh, ñëw leen di leen supporter Sadio Mané dooleel ko borom ballon d'or bi bu weex bi am na bu noir bi am na bu noir bi laa am am na bu rouge bi aussi tamit au 77 352 31 01 pour fii ci réew mi ak bitim tous les tailles tamit taille yëpp am incha allah boo ñu commandé ne leen ko am yoo sax man mi maa obligé livré a nekk quoi mbokk Euh, Sadio Mané deuxième la jël mu nekk lu historique nag parce que après Weah depuis 1995 la la africain bi def li ñu mel Weah da jël moom daa jël coupe bi daa jël euh, ballon d'or plutôt mais cette fois ci Benzema lañ ko jox vote moom dafa cohérent deuxième mais loolu c' est exceptionnel loolu foog ma toog jël sama temps si vidéo il faut ma ma détaillé mi quoi mais nii nii dañuy joxe information mais il faut ma toog ma wax si Sadio Mané ñi moom Sadio Mané c' est le meilleur le temps fii à fii tu étant af Sénégal laa wax de l'un des meilleurs en Afrique loolu moom foog ñu wax que instant c'est une légende saa yi parce que saa yi ballon d'or amul ca nii de amul ni fii instant yi jamono bi football bi métti na métti bu xamante ne saa si dix premières rek c'est quelque chose dix premières yi moo tax tamit waa Bayern xam nañ loolu ñu ne amplement mérité kontaan nañ seen joueur ñoo te ne sax Liverpool yi nga xamante ne saa message bi gën a tuuti sax mooy loolu Sadio Mané ba mu jëlee affaire bi kenn peut être bu Instagram mais bon da ngay ree ba tas te boobu jël trophée bi ba jële jëlee Coupe d'Afrique bi tôt xam nga Bayern moom gis naa ne fonk nañ Sadio Mané respecté nañ ko sa soit dirigeant joueur coéquipier ak yooyu quoi xam nga staff boo xoolee euh, presse bi di siy génn benn en général lu positif ko dañ ko jàppee un grand joueur moo tax ñoom ñoo gën gën a gëm ne ñoom ñoo jënd jënd bu baax. foo foo leen gisee jour bu xamante ne deuxième la jër jël si à 30 ans muy jër xaw ma 35 millions amul fenn cadeau waa Liverpool dañoo offrir cadeau lañ jox kii cadeau. dañoo ka cadeau may ko waa waa Bayern waa Bayern sonn ñi sax mais Sadio Mané wees na kat trente trente cinq millions waaye jëriñ ñaa jënd fii ay quatre vingt ay xaw ma ñaati millions ay mag yooyu j'en passe y en a tellement même même booy yi may gis nii ah xam même boobu am ñoo ñoo prouvé guñu dara quoi ay Rafinha ay gars yi lañ quoi nangu nañ ne somme bii mais joruñu loolu quoi je veux dire mën nañu football loolu moo tax cadeau waa waa Bayern moom euh, Liverpool cadeau lay lay jox. jour bu xamante ne yow yow yaay deuxième meilleur joueur du monde instant yi tu es le mais meilleur joueur du monde devant ñoom Cristiano Messi euh, Kylian Mbappé en j'en passe xam nga ñoom ñoo saa yi tubaab ñoo def seen trophée ñu wax loolu donc amplement mérité. Euh, keneen ko xamante ne tey moom euh, xam xëy na waxuñu ko mais mooy seul Sénégalais bi fi mu na a gagné Sadio Mané trophée Yacine bi muy euh, kii di Edouard Mendy moom daaw gis ngeen ne Donnarumma la ko yow mu juróol scandale mooy année mu jëlee Ligue des Champions c'était mérité ñëpp ne Edouard Mendy àddina gëpp nangu <laughs> ñoo jox ko Donnarumma cette fois ci Courtois lañ ko jox Courtois ko xam nga Courtois Courtois boo xoolee ki liñ si ji Edouard Mendy def sax def parce que boo xoolee Courtois def na ay arrêt yu décisif nag mais à chaque fois Benzema day dugalaat xaw ma na da ngeen seetloo propre rek Edouard Mendy bi ñuy jël trophée ay clean sheet doon def maanaam du ñu encaissé du ñu encaissé quoi mais quatrième la jël quatrième donc euh, information yi tey joxe noonu mais ñu donte Edouard Mendy deful il n'a pas fait un excellent saison du côté baax la xam nga jox nañu trophée coupe d'Afrique bi mais dafa dañoo ñàkk ñaari final ton benn ko muy coupe d'Angleterre coupe de coupe bi xam ne ñoo jàmbarloo ñaari ñu trophée daanaka donc loolu yëpp moo tax tamit na si moo tax mu dem quatrième quoi donc mbokk yi di mu ne ko ay xibaar yu ma bëggoon partager ak ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur Senfootball TV